te taal lu waay am jox waa Tirinda ma jox ko néew di doole yi mais waa Tirinda yéen laa wax lu waay am rek ñu ngi def waa Tirinda. waa Tirinda àll lu waay am lu waay am si jëriñ bi def leen fii. waaw kaa jël woo. ah yow xanaa koy. waaw mais kaa jël. kaay jël pardon kaay kaay jël non amul problème kaay jël mënoon nañu ànd ak ànd bi waa kaay kaay jël kaay kaay dama soxla kaay kaay jël yow fan yéen fan lay wër baax. xaw ma kenn kaay yow kaay rek ma ne kaay baaw toppatoo kaay. les affaires. tourné tàggaw le président va arriver. pardon jóg leen son excellence monsieur le président du tribunal ay suis au garde à vous monsieur le président sinon sax <laughs> dafa xew Ah? Ah, ah en direct la xam nga biisu xam nga ko loolu seen am jëkkër ma bett ko bii jëkkër naa ko ci yow au travail au travail au travail <laughs> yaa ngi jëf waay yéen ndox jógu leen ah ñu laa wax loolu ndox jógu naa seen jabar bi ma ñëw bu ngeen jóg est-ce que c'est ça toog leen docteur ma wax yow bis nañ dem danañ kuul sëñ bi dama bëgg nga déglu li may wax fii du fooraa du daara. Ah? tribunal la. alors bëy la ñu ngénte. dégg li ma wax rek bàyyi ma ñu ngénte la muus. bëy la ñu ngénte la. daal ma loolu. ana fa caam awa caam sama juum si yow. ah yow kaay. s'il te plaît gàtt. ton sa yaay nag. woy ñu ngi dund woy. yow ban année nga judd. man de. ronga torop. yow is na bokkoo ci les premières hommes. oui parce que yow mi ngay judd xam naa ni seen koñ amul parce que bu fekkoon am na chef de quartier dina la notifié yow <laughs> robo rek ngay <laughs> di ko disposé xoolal ay waay ay waay góor lu muy doy li yow loolu <laughs> di nga bëri yaa ndaw soo si yéen a la yow odo si yaa woo ah. yéen a nuroo xol ah xam nga kii. laajuma la. am naa fenn. aja na ko daal loo ko bindee. dama ko apporté plainte. waaw. ndax sànq suñu papa dafa gaañu bàyyi ñu xaalis bu bëri. ndeysaan gisuñu si dara mu lekk yëpp. moom mii. waaw ba pare li ci gën a garaaw mooy day wër si suñu tur di wax naan di ñu ñaan si suñu tur daal. ah maanaam di jël seen tur ci yalwaane. si yalwaane waaw waaw góor waay jërëjëf doy na jox ko. waaw li ma ci gën a métti nag mooy bi yëpp satala lañ ci doon. yéen ñi satala waaw. <laughs> satala kay. waaw. ay yow góor gi yaa moom munoo ko def sax si ko loo waxal. naka la wax dama yaakamti nag. suma tuur mooy. min woni garage samba jiilel cuwal souleyman moustapha so mi xale kon déggoo ko ah dégg naa ko papa yaa ko defoon defoo ko ah yaa ko defoon defoo ko ala lekk ma seen papa waaw ñaar téeméer bay ñaar téeméer ana ñaar téeméer yi ma jënd leen satara pour ñuy jàpp jërëjëf merci bay na tu as la parole muchas gracias señor presidente maanaam da ngay saagawaate. na ma nuyu olof man olof laa waalo waalo biir sa baay bi espagnol olof la. je vous je vous salue et je vous respecte monsieur le président. vas-y. ok euh, monsieur le président. oui. sama client bi taxaw. Uh-huh. dafa juum. dafa juum dafa juum. Ah. parce que xale yi moo leen yar moom moo leen yar seen wëllëree waajur la woon. léegi bi nga xamee ni seen waajur génn na àdduna bàyyi ko alal ji mu def ci naka sudul noonu. waaw mais erreur la. ah maa ngi lay ñaan mm-hmm. sa kattan. wallaahi waaw ngi lay ñaan. waaw. nga baal ko. te yàlla rek tax. da ñaan te yàlla tax. da ñaan waaw. maa la mayu. te yàlla tax. tubaab waaw faute avouée. waaw moitié pardonnée. maa la mayu xanaa jokkan nga. por favor monsieur le président. por favor yi bàyyi nga. waxul bàyyi de. lan la wax. lan mooy por favor. ndax mu gis ma sol perforé man. waxul perforé. waaw léegi da ngay ma la. te la merci monsieur le président. moom xam naa ni man xam nga sama problème xam nga mooy lan boo dee ban armée nan lay suul ci a rek loolu laa lay laaj yow ban armée ban armée armée Yoff Kajoor fa armée Yoff bii moom Kajoor fa ndax boo tëddee cinq la xam nga fu la ñu war xanaa da ngay fay suuf si. je peux. Ah, ah, ah, kay. merci monsieur le président. boo gisee kay di nga fa. gis nga monsieur le président. waaw. sergent Ndong. ne mérite même pas la nit. liggéeyee toute sa liggéey alal ju bari bàyyi ay doomam yow nga génn àdduna ngeen ñaar ñu bokk day ak bàyyi donc jigéen ji jël yaram dégg na ngeen lekk alal alalu njëriñ nit ñi war a bàyyee lekk billaay ndeysaan nit ki seen xale yu ndaw seen i waajur liggéeyal leen bàyyi leen fi génn àdduna nga dem di lekk saa ko lekk du nga jib yàlla bu ko wala nag yow toogal dana sinage wala nga soor lim sol moom na def. c'est le président tribunal nga nekk wala. lu sa yoon ci lim sol. lu sa yoon ci lim mais dañuy liggéey. ah waxal sama ñu xanaa man. merci a ni ñu daal mooy alal njëriñ kenn lekk. Mm-hmm. ndax waa ju nit mënul liggéey ay doom pour leur avenir. nga jël lépp na ko ndërëx. su la jigéen sax ma xam ne bëri na. dëgg la te ñu mel ne waa Tilinga exemple lañ ci réew mi. dañuy yeewu suba ak ngoon ku dégg bëccëg il se bat joxe li ñu am ak li ñu amul yëpp pour dimbale ñu néew doole ñu amul. il est temps que nit ñi bàyyi li ñuy def kii nag di lekk alalu jàmbur xool exemple ci waa Tilinga il mérite d'être emprisonné à perpétuité. merci te yow la yàlla may pouvoir. yàlla may lu nguur. <laughs> tey nga ne suñu kanam. je demande la peine pour kii nga def ko perpétuité tëj ko ngir dund. góor gi taxawal dina jàkkaarloo ngeen. merci beaucoup face to face. lu la neex defal. et Fall. oui ma bu ko neex sax mu tëdd. bàyyi ko. Euh, xam nga yow yéen ñu mel ni yéen waru leen sax dund bay juddu yow bàyyi kii bi muy liggéey sax ay fu mu ne woon. su ma bàyyi su ma bàyyi. dama ni bàyyi kii bu question laa la laaj tontu rek sa bàyyi. sa bàyyi ak bàyyi ak suma bàyyi waaw kay jërëjëf comme dangay saaga doy na neex na jërëjëf xam nga ñàkk a fayda ba mu weesu dund ni mu méttee liggéey ni mu méttee nit faatu yow xanaa xanaa xanaa kay yow yow booy lekk nga yërëm ñi musal leen ci aslaf ñoom ñu dund waaye nga lekk lépp xale bi bi mu jëlee satala nga waroon sa xel di sa yàlla xam ni di nga di nga fekki baayam daa ñàkk jom alal yu jii ndee su ko lekk yéen kay yéen a tax xale ci mbedd bi di gees xam nga ne kii mille francs jigéen ko fa yaa ko dugal am na courage ma ngay liggéey waaye ay moromam ñu ngi ci mbedd bi ñii de laajuma la waaye yow laajuma la ay moromam ñu ngi ci mbedd bi di gees ñii di def naka suñu noonu fekk seen i baay na alal ngeen wax na alal ci bàyyi xale yi torox ci mbedd bi ñii dañuy jaay seen i kër jaay seeni oto bàyyi jaay seen lépp bàyyi xale yi ñuy toxawaan ana xaalis ba ana xaalis ba jeex na lekk toxa ba mu jeex te nag ñun aaye gis nga ñi xam li def dëj bu ñu dem d'accord rek lépp koy woon d'accord rek genre yi asalaamaaleykum sa nijaay kay sama xarit la woon di wut bu takk yaay jàmbur yi lekk xaalis yi jàmbur yi ginaar ba mu jeex nga nga xale bi torox ni yow nga ne rafet na dama yàkkamti rek juróomi weer. parce que jërëjëf juróomi weer multiplié par cent ans égal ñaata. wax ko ci olof xam nga euh, ma lay dugal nii fasuma la faa a génne. kontaan naa amoon xam nga ko. kii neexul a waxal lépp moo ko ci biir yow. lépp moo ko ci biir. monsieur le Eh, eh, yow ban mbir mi yow yow sa mel nga doo góol. monsieur le président bokkul. ngay def te boobu ci yow ba yow may ma ba ma génn ci ba pare. génn na génn na génn na génn. loolu moom di courage rek loo liggéey. liggéey sama liggéey boobu. ndeysaan góorgóorlu rek amagoo jëkkër. déedéet. am tan am tan noonu dégg nga am tan noonu <laughs> eh, njëriñ bu baax a ngi nii waaye seetaan rek ormu waay. allahu akbar ah? mais yow faux président dégguma faux président nga yow tu mérites pas qu'on te respecte. am na waxal bi yow laay waxal. man mi ngay wax tu mérites pas d'être là mérite woo sol robe bi. kii kii kii soo ko amoon kosam ko. Eh, monsieur le président nix nix. yow da ngay yab nit ñi yow yow man maa lay defaral affaire bi.

哎哎，那么这把你。